la fii ci centre de recherche et d'essai bu Touba bu kër Soxna Roqee Bousso muy centre boo xam ne ministère de l'enseignement supérieur moo ko fi installé depuis 2014 ci ndigalu Serigne bassiru Mbacke ibnu Serigne Abdou donc centre yi nag ils sont au nombre de 23 ci Sénégal yëpp euh, li nga xam ne mooy liggéeyu centre bi aussi mooy jàppale population bi ci formation tàmbalee ko ci formation tigi mooy initiation en bureautique euh, former leen aussi ci wàllu maintenance assemblage ci biir loolu tamit am na ci yeneen formation yoo xam ne dafay gën a concerner les femmes mu jëm ci wàllu transformation alimentaire yi muy euh, defar lu mel ne wàllu jus ak saponification ak eau de javel donc yooyu yëpp ay formation la yoo xam ne usagers yi nga xam ne ñoo ñëw ci centre bi dañ koy bénéficier wu kon muy centre boo xam ne depuis 2014 mi ngi formé ci lu jëm ci wàllu TIC ak yi nga xam ne moom lañ fi tudd kon euh, tey nag ci biir loolu ñu bëggoon euh, gën a jegeel centre bi ak population bi ñu organiser benn journée porte ouverte ci ndigalu sëñ Bassirou Mbacké imi sëñ Abdou Khadre ak ci teewaayu Euh, représentant ministère de la du ministre de l'enseignement supérieur ngir gën a wan population yi activités yi nga xam ne ñoom ñoo fi am defal leen visite guidée dans le centre permettre leen ñu xam yan réalisation moom la fi usagers yi def comme xam naa si kanam rek dañuy dugg ci biir def benn visite guidée boo xam ne vraiment dinañ leen expliquer yépp li nga xam ne ay réalisation lañ ngir que centre bi gën a profitable ci population bi nga xam ne moo tax ñu ubbi ko muy Touba te mu concerner toutes les couches kon loolu daal moo nekkoon objectifu journée bi ñu ànd seen ak Touba Vision pour wan leen li nga xam te ni mooy journée bi. fi mu nekk nii euh, comme ñu ngi ci intérieuru centre bi donc vraiment xam naa te étudiants yi nga xam ne ñooy les usagers du centre ñoom la ñoo fi nekk nii donc vraiment. ñoom ñoo piloté l' des activités donc tey am na benn exposition. Euh, exposition bi aussi du dara lu dul un peu représenter activités yi nga xam ne mi ngi fi am ñu def ko en image donc su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñooy les visiteurs mën a am benn aperçu ci li nga xam ne moom mooy centre bi donc élèves ñeen ñi sax ay enseignants ñëpp daal vraiment kenn ku ci ne ak les ménagères parce que dañu bëgg centre bi. nekk benn euh, interface entre population bi ak li nga xam ne moom mooy recherche donc loolu daal yaakaar na ci côté boobu kon exposition bi donc exposition bi tamit comme niñ ko gisee rek bon produit yi mooy produit yi nga xam ne femmes yi ñoo ko fiy defar mu jëm ci saponification comme ñu ko waxee woon ci ci introduction bi ak boîte de conserve yi donc euh, chaque année aussi ci biir activité CREI bi am na ziar bu ñuy def ci koor gi di ko def sëñ Bass Abdou Khadir mi nga xam ne moom mooy parrain centre bi euh, di ko yóbbul suñu suukaru koor mu ñuy ñaanal ñu koy gën a sant di ko ñaanal mu yàgg fi ci réalisation bi nga xam ne def na ko mu jëm ci wàllu xam-xam ndax sëñ Tuubaa dafa defoon ku ku fonk xam-xam te it muy wàllu goo xam te ni ñëpp gis nañ ne tey dañ ko ñun jullit yi dañ cee war a góorgóor rawatina taalibe murid ba peeg ko ndax Euh, bu alxuraan di wax ne wa aidu lahum masataatu min quwa wa min ribaatil xayri turhibuuna bi adu wallahi wa aduwakum loolu li ci liñ ci mën a déggee mooy ñu jéem a tàggat ñu njaboot gi ci bépp outil boo xam ne danañ ci mën a xeexalee diine ngir mën cee jàkkaaroog noonu yàlla yi te léegi nii boo xoolee noonu yi technologie de communication et de l'information bokk na ci li ñuy xeexee suñu diine ji comme war nañ former suñu xale yi ba ñu ko mën a défendre diine ndax diine suñu borom du ko wàcc di ko défendre waaye ñun jullit yi ñun ñoo ko war a défendre donc loolu moom moo tax amul benn couche buñ bàyyi soo xoolee ñi ay enseignante coranique lañ mooy jàngalekatu alxuraan yu jigée ñi am na aussi ay jàngalekatu alxuraan yu góor ñi ñii ñoom ce sont des élèves leen di former ci de euh, programmation ak dessin lu jëm ci 2D 3D donc yooyu daal moom moo nekk en grosso modo yi ñu leen mën a ci activités yi nga xam ne day am ci centre bi comme xanaa ñu dugg ci salle multimédia bi xool donc salle bi ñuy ñuy dugg moom mooy salle maintenance donc bu ñu waxee salle maintenance moom tamit fi la ñuy defaale tamit assemblage yi donc fi la ñuy defaale tamit assemblage parce que on les dañuy forme tamit xale yi ci technique d'assemblage parce que loolu tamit dana leen permettre ñoom suñu paree rek mën a opérationnel c'est-à-dire euh, mën a mën a mën a mën a mën a initier seeni projet bopp xool nan la ñuy fexe ba di yëngu ci service ak ci wàllu maintenance ak ci wàllu assemblage parce que loolu lépp tamit ça permet au jeunes ñuy am tamit esprit d'entrepreneuriat moo tax ci biir loolu nag on a envisagé mettre sur place yeneen i module de formation yu mel ne l'entrepreneuriat en plus euh, management ak lu mel ne technique de communication secrétariat pourquoi pas pour permettre jeune yi aussi ñu mën a am insertion rapide jàppale leen ndax loolu dafay lu am solo kon yooyu daal moom moo fi nekk mais centre bi aussi femmes yi bu ñuy ñëwee par par par parcours la ci la ñuy defaree seen i seeni seeni seeni i seen i cours seen activité de transformation donc xanaa euh, tey soo xoolee tamit salle bi euh, par rapport ak activité yi ñu fiy def moom moo waral ñu aménager ko nii waaye fii mun euh, laboratoire labo la boo xamante ni bi technique bi yëpp fii lañ koy defaree assemblage yi fii lañ koy defee maintenance bi fii lañ koy defee même produit yi nga xam ne femmes yi ci la ñuy liggéey fii lañ koy defee par rapport à des heures yoo xam ne dañ koy planifier donc loolu daal ci tënk mais nag journée bi tey moo laaj vraiment ñu aménager bërëb bi pour euh, kii mais si kanam tuuti tamit dinam ay démonstration par rapport ak euh, cérémonie bi ñu bëgg a def. ñu dugg ci dans la salle de l'informatique pour xool léegi ñu ngi ci salle informatique bi bon c'est la grande salle bi nga xam ne euh, xale yi fi lañ leen di defaree initiation en bureautique euh, infographie euh, lépp lu jëm ci wàllu développe développement ak programmation wàllu scratch yi donc fi mooy centre bi salle bi nga xam ne vraiment ci lañ koy defee donc au nombre de vingt 22 ordinateurs ñoo fi nekk avec deux formateurs donc ñoom ñooy assister xale yi di leen encadrer ci module de formation yooyu xam naa ci kanam aussi ñoom dinañ ñëw def fi ay ay formation def fi ay démonstration du moins par rapport ak euh, ak yi ñu ciy def waaw yaakaarook moom mooy Euh, direction bi euh, mooy administration bi aussi parce que xale yi dañuy soxla inscription te puisque ministre de l'enseignement supérieur daf ko mettre au comment dirais-je à la portée de la population donc euh, tout est gratuit inscription yeeg yëpp vraiment xale yi dañuy ñëw inscrir bu ñu ñëwee tamit def seeni formation donc c'est le c'est la direction bi nga xam ne moom mooy occupé wu ci wàllu googu ak suivi bi donc comme loolu daal ci tënk moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy liggéey bi. réalisation yi nga xam ne euh, femmes yi démb ak tey ñu ngi koy fan yëpp moom la ñuy def buñ paree dañ koy jaay lu si juddoo tamit ñu jëlaat ko euh, jëndeewaat ko euh, matière première ñoo continuer aussi di produire mais à chaque production aussi dañuy recruter d'autres yi nga xam ne amuñ ci amaguñ woon formation bi ñuy ñëw ñu di leen ci initier. comme saa nga xam ne ñenn ñi tamit vraiment ñi ngi nekk ci seen i kër di appliquer li nga xam ne moom lañ fi jàng vraiment di ci am li nga xam ne mooy seen wërsëg donc loolu mooy li nga xam dinaal ci tënk moom. waaw kon euh, niñ ko doon waxee fii mooy salle bi nga xam ne fii la soxna yi di préparer seen transformation yi ñuy def moo xam lu jëm ci wàllu transformation agro agroalimentaire yi mooy jus yi ak céréales yi locales yi. kon ñu présenté leen soxna Anta ak équipe bi nga xam ne ñoom la àndal ñoom ñoom ñoo koy ñoo koy liggéey ak ñoom soxna Soda ak ñi mu yëpp kon ñu bàyyi leen ñu présenté leen lu si ne nan lañ ko defee rek ak fan lañ ko jàngee ak wax dëgg fa yàlla euh, liggéey bi niñ koy niñ koy niñ koy defaree ba mu am solo nii te sell comme soxna Anta bismillah Touba liggéey bi moom ñu ngi ko jànge fii ci kàttanu suñu boroom di sant nag bala ma wax dara sañ Xaadim mi nga xam ne lépp mooma ndax suñu mënee lii lépp ci loxoom ci la aw ñu jàngal na ko nag jàng bu sel ñu di ko liggéey ci boobaak tey réccuwuñ ko ñoo ngi koy liggéey bañ ko tàmbalee liggéey ba tey ñoo ngi ci di ko def lii ay sila yu sell ñu liggéey ko liggéey bu qualité boo mos da xam ne daal liggéey nañ ko lii ci des moom itam koraketu junjeer bi fii lañ ko jànge bañ ko fi jàngee ba tey moom arrêté wuñ ko ñoo ngi koy liggéey te luñ ci defar macha allah nit ñi bëgg nañ ko lool dañ koy jënd di ko jëfandikoo li ci des ay sànqal la ay cere araw sànqalu mboq araw bu mboq yëpp am na fi jigéen ñi jàmbaar lañ ci sawar nañ ci jàngal nañ ñu ko wax dëgg yàlla li ci des nag mooy ñu jàppale nu ba liggéey bi gën a jëm kanam buñ sañoon daal liggéey bi du arrêté ñu ci mën a jàppale ba liggéey bi gën a jëm kanam ndax nit it buy liggéey bu sañoon du commencé liggéey ba ca biir mu di ko arrêté loolu moom gën a ci kon nag lu ngeen nu ci mën a jàppalee ba liggéey bi jëm kanam daal mënu gënal ñu commencé loolu ba ci kanam moom it ñoo soxna Anta ñooy ànd ci wàllu jus yi comme ñu jox ko ñu présenté yi lenn lu ci ne lan lañ ko defaree ci à base lan lañ ko defaree ak leen lu ci ne tamit lan la bismillah citron citron lañ ko defaree un litre bu nekk deux litre ndox lay nga ci def man ko utiliser woo bii tamarin daxaar lañ ko defaree juro moom tamit un litre bu nekk moom tamit deux litres ndox nga ciy def man ko utiliser woo mën na tamit diire ba si mois te du def dara bii jinjeer la moom tamit sirop jinjeer la bii moom tamit ba tey euh, kii bi la citron bi moom valaat la mooy bu ndaw bi bii tamit daqaar la mooy mooy un bi euh, kii la euh, marmalade la moom confiture la comme saaru confiture la waaye moom marmalade la tudd pataas lañ ko defaree ak buy ak tuuti citron moom lañ boole mélangé ko bii koroket jinjeer la moom lañ ko defaree jinjeer lañ ko defaree ñu saaf ko bii croquette koko la koko lañ ko defaree boo ko teg bii ba tey bii tamit jus citron la moo biyee ñoo yam benn la bii caagri la caagri la moom boo ko jëndee dangay baxal sa ndox rek def si daal di ko utiliser woo yomb na lool bii araw la boo dee fonde ngay def laa xew yu yëpp daal noppale na daal da jënd rek nga daal utiliser wu gën waa kii la ñu gën waa liibar bii mooy liibar bi bi cere la moom defar nañ ko defar bu sell bu set tamit te wóor bii liibar la bii gën waa liibar la bii gën waa liibar kii la araw mboq la man na def ceeb man na def sóom bi mboq li man daal bari na bi sànqal bi la sànqal mboq bi tam sànqal mboq la trois qualité la da lay nga génne bu dijj bi génne bu sew bi génne beneen bi nga xam ne moo si topp bi mooy sànqal bi bee mooy araw bi bii moom sànqal la sànqal moom la toggee laax bi mooy libre bi bii mooy ganwaa libre bi bii mooy bu ndaw bi waaw lii daal lañ fi jotoon a defar des na tamit mango bi moo des moom daal liggéey bi set na sell na wax dëgg yàlla tamit te ñu koy jàngal tamit ñu laabir lañ dañ daan def la lii kii wala lii boo amee loo loo lépp loo xam ne dem nga ba xam ne jaaxle nga si soo leen woowee dañ lay expliquer te duñ la gëdd wax dëgg yàlla bañ ci dalee liggéey ba tey yàgg na mais wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant daal te lépp lu ñu defar tamit dañ koy jënd ndax nit ñi bëgg nañ ko parce que liggéey bi moo set waaw ñu jéggalu nag ñoom mu ne. waaw kon ginnaaw bi ñu jugee ci saalu euh, transformation bi. ak jigéen ñi niñ leen présenter produit yi ak ni ñu koy defaree ak euh, dure bi muy am ak benn bu ci ne ci lan lañ ko composé ñi ngeen yéen nag ci salle informatique bi nga xam ne moom mooy salle technique bi nga xam ne fi la ñuy former euh, usagers yi ci wàllu informatique ak li mu lëm ëmb lépp donc salle bi nag gis ngeen ni ko aménagé am na vingt 22 machine yoo xam ne dafay jël groupe bu ne dina am vingt 22 personnes journée bu ne aussi dinañ jël 4 groupes dans la journée Euh, donc c'est bien climatisé comme ñu nekk ak ku ñuy wax sëñ soño bu Cissé moom tamit ci UJG yi la donc ñu laaj ko mu présenté wu tamit wax ñu nan lañ dundee centre bi ak tamit nan lañ ko gisee sëñ soño bu bisimilah sëñ Xaadim eh, may dooree tamit eh, sant yi ci nga xam ne mooy sëñ Xaadim ki nga xam ne mooy jiitee centre bi mooy gestionnaire bi nekk fekk ku ñuy wax DER jaata mu nga xam ne mooy formateur bi man nag Souhaïbou Cissé laa tudd comme présenté na pare ma nekk enseignant ma benn ma nekkoon ci bénéficiaires yi ci wàllu formation parce que formation modulaire lay nekk ay formation bureautique bureautique avancé man des fois def naa bureautique def bureautique avancé def infographie comme ci matière yi nga war a gis fii def infographie def maintenance waaw ci loolu lañ lay former former boo xam ne day ànd ak xarañte day tax yow mi nga xam ne yaay bénéficier ñëw fii da ngay da nga koy danga koy bëgg ndaxte ni lay teeroo ni lay jàngalee ni lay formé ca bërëb bi tamit boo ñëwee wax dëgg yàlla doo doyal ndaxte accès bi jafe yomb na ca boo toogee da ngay toog comme nii ma toogee nii nga conforté wu yow dong ak sa machine am climatiseur comme ni nga ko waxee vraiment kon boo dee liggéey day yomb waaw ci njariñ bi nag njariñ am na njariñ lool surtout man mii mën naa koo wax man mi xam ne enseignant laa ndax bi ma defee bureautique ak bureautique avancé daf ma jariñ sama wàllu liggéeyukaay ba ma nekk ci wàll woowu ndaxte yëpp yoo xam ne dañuy def comme texte yi may saisir di ko def ay composition man maa koy saisir mu rafet te fii laa ko jàngee loolu ñuy wax tamit sama composition bu ma demee ba fin d'année ma def sama évaluation composition trois kii composé trimestre yi maanaam du ma am problème mu nekk di calcul comme ni ma def di xalaat sama bopp dama utiliser Excel comme ni ma ko jàngale fii ma utiliser Excel boobu ma def ko ma génn ci ma réussir dans trois cinq minutes trois du yàgg sax. ma pare maa njëkk déposé mën naa école ba ma nekk kon loolu ñii ñoo ko may tey kon centre bi njariñ boobu beneen bi nag bi ci gën a garaaw mooy def naa ko fa école ba ma nekk euh, foofu noonu gars yi bu ñuy ñëw di def dañuy bind si seen i bulletin comme ça da ngay ñëw def sa kii ex yaa xam nga calculer ak machine di bind mais man damay ñëw ak wóot avancé foofu ñuy wax public postage nga xam ne fii laa jàngee automatiquement man naa 70 élèves à la minute qui damay tàppe rek mu indil ma bulletin bu nekk kon fii laa ko jàngee kon loolu lu am solo la. kon mën naa ne centre bi maa ngi ñaax ñëpp ñu mel ni man ñëpp nag bàyyiwuñ kenn kus boo man di doon dañ lay jàngal euh, ndaxte suñu xaali muy nii moom am na formation bu muy def ñoo xam ne jàngu ñu sax man jàng mën ngaa bañ a jàng dara sax boo ñëwee dañ lay former waaw mën nga ñëw nga nekk un bet boo ñëwee dañ lay jàngal ba li nga bëgg nga dem ko yaa xam métier moo bëgg kon vraiment centre bi man gis naa ci sama njariñ samay moroom yi toog ci biti yëpp kuñ ci tegoon fii da wax lu ëpp li ma wax kon centre bi am na njariñ wasalaam xam naa ne suñu xaadim maa ngi remercier ne vraiment formateur yi di ci teg ku ñuy di ci jiital euh, jawriñ ji nga xam ne moo nekk le gestionnaire sëriñ xaadim nga xam ne koo gis rek xam ne moom accueil moom kenn du ko netta boo ñëwee dafay bëgg nit ak der jaata mi nga xam ne boo ñëwee moom du sonn groupe par groupe lay jël di la jàngal ba nga xam ne man fi may waxee nii nii lu ma bëgg a def si machine ma naa koo def kon macha allah vraiment kontaan naa ci centre bi ca man sama centre la jërëjëf ilaahi fasal ala man niñ leen ko waxee woon rek ci njëlbeen gi ginnaaw bi ñu leen présenté li nga xam ne moom mooy centre bi wax leen activités yi ñu fiy def dafa leen visite de ànd ak yéen tamit ci bërëb yi nga xamante ni leen lu si ak li ñu fay def comme ñi ngi ànd ak yéen nekk fii ci biir administration bi nga xam ne mooy direction bi kon euh, bu dee lu jëm ci wàllu naka la nit di mën a ñëwee ci centre bi kon centre la boo xam ne ñu ngi fàttaliwaat ne dafa accessible ci ñëpp du ci ñi du ñuy jàng rek ba ci ñi ja euh, boo jàngee français accessible na ci yow boo jàngee arabe boo jàngee alxuraan boo jàngul dara ba ci mécanicien bi mason bi euh, coiffeur bi commerçant bi kenn ku ci ne su ñëwee la ngay liggéey dañuy xool la nga ca soxla ñu jàppale la ci former la ci la nga bëgg su ko defee ba ci photographie ñun ñëpp ndax li tax a jug centre yi mooy dimbale population bi mooy ñi nga xam ne ñooy waa dëkk bi ñu mën a euh, xarale yi bees yi ñu mën koo jëfandikoo ca nañu bëggee kon loolu daal bu dee ñi nga xam ne tamit xëy na ci xarale yi ñoom euh, kii wuñ ci bu dee soxna yi nekk ci kër yi mooy jigéen ñi ñooñu aussi buñ defee buñ ñëwee danañ leen jàngal lu jëm ci wàllu saponification mooy nan la ñuy defaree saabu na la ñuy defaree eau de na la defaree ay jus na ñuy defaree ay caagri na lañuy defaree lu mel ne wàllu sànqal na la defaree tamit cere na la defaree cuub yooyu yëpp ñu ko fiy jàngale pour permettre soxna yi ñoom seen jëmmi bopp xam-xam yooyu suñ ko amee muy technique yooyu ñuy dem di ko jëfee kon loolu aajowut jàng ak ñàkk jàng li ci am solo mooy mu ñor la loolu nag soo ci bëggee inscription bi ni muy tëddee mooy ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen mooy fii ngay ñëw soo ñëwee joxe sa tur ak sa sant ak sa adresse ak ñaata at nga am ak ci loo yëngu su ko defee nga joxe sa numéro de téléphone saa su ne dañuy inscrire selon ordre d'arrivée yi euh, bu ñu bis bu set promotion bu ne 3 mois la ñuy def formation sa dire bu dee bureautique trois mois la infographie trois mois la donc chaque groupe semaine bu nekk dinañ am 4 heures de temps par exemple am na group bu lundi 8 heures 10 heures ñoom ñooy ñëwaat mercredi. huit heures dix heures ainsi de suite donc groupe dix heures midi lundi ñoom ñooy ñowaat mercredi dix heures midi su ñu ñëwee aussi y a des groupes de mardi donc ñoom aussi ñoo ñëw mardi ak vendredi ak d'autres groupe yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw jeudi ak samedi donc centre bi aussi dafay fonctionner du lundi au samedi kon loolu daal mooy li nga xam ne bu dee inscription yi tamit loolu rek la après nga joxe sa sa sa sa sa sa carte d'identité wa ilaa nga joxe sa photocopie extrait de naissance donc loolu li ñu ci jublu mooy xale bu ci ne mën a accéder ci centre bi sans mu am ay ay ay ay ay ay ay ay waaw bu dee ci wàllu emploi du temps bi comme ni nga ko waxee xale euh, ñi ngi cours yi ñi ngi commencé huit heures du matin jusqu'à dix neuf heures du soir kon mooy huit ci suba ba dix neuf heures ci ngoon. nga xam ne daanaka timis la ñuy arrêté chaque chaque jour maanaam altine ba samedi kon bu ko defee tamit bépp promotion bu ñëw selon module bi nga doon def trois mois yi su jàllee danañ organiser ay euh, examen de passage par exemple soo paree bureautique da ngay dem defi maintenance def assemblage def infographie donc ba def réseau pour que nga mën a am ay compétences transversales maanaam ay possibilités ci wàllu compétence ak xam-xam yi su ko defee nag chaque kii aussi bu jàllee ak bépp kii booy def rek module boo fiy def su jeexee danañ la jox attestation buy wane ne yow kat formation sàngam def nga ko ba génn ñu attesté ko donc loolu muy lu am solo attestation boobu tamit dana la mën a dimbale ci sa CV pour que tamit bu ëllëgee ndax am na ay xale yu ko defal ñu ngi ci ay multi service ñu jël leen dootu ñu ngi ànd ak ay commerçant di leen jàppale ñenn ñi sax ñu ngi nekk ci micro banque yi ñu di leen dimbale donc mel na ne loolu mooy li ci am solo bu dee nag personnel bi nga xam ne ñoo fi nekk ce sont mm, des formateurs qualifiés yoo xam ne ministère de l'enseignement supérieur moom moo leen recruter sur des bases yoo xamante ni par rapport ak seen i seen i seen i seen i seen i seen i qualification donc ñenn ñi ñooy def formation bi en arabe ñenn ñi ñoom ñooy def français bi ñenn ñu aussi ñoom ñooy jàppale jigéen ñi ci agro alimentaire donc loolu daal mooy personnel bi nga xam ne ñoom ñooy accompagner population bi ci centre bi ngir jàppale leen ci yi nga xam ne moom mooy yi ñuy soxla te mu nekk lu am solo looloo waral nag ñu organiser journée bi ngir gën a jegele centre bi ak nit ñi wan ko tamit autorité yi ah li doon def tamit ñu évaluer xool daal di koy daal di koy daal di koy gën a promouvoir gën koo vulgariser bu ko defee tamit ñëpp ñëw jàpp ci centre bi liggéey bi gën a am solo ndax loolu lépp njëriñu dëkk bi la waaye njëriñu réew mi la waaye njëriñu kenn ku nekk ci ñun la loolu daal moo nekkoon ci tënk li nga xam ne moom mooy objectifu journée bi muy gën a. waaw comme fi ñuy jeexalee di ci ñaax ñëpp ak di leen ko leeralaat mooy centre bi ginnaaw bi ko sëñ ba Abdou Khadre lijjantee ba mu ñëw ci dëkk bi moom lim ci jublu mooy mu nekk njëriñu dëkk bi bu ñu waxee dëkk bi nag yaatu na. fu waay nekk ak lu mu sori sori am nga possibilité bénéficier wu ci centre bi moo xam ndax am nañu élèves yoo xam ne ñu ngi jóge ba Mbàkke am ñoo xam ne sax ñu ngi jóge ba Ngaabu waaye loolu lépp seen pas-pas am ñoo xam sax ñu ngi jóge ba Taïf kon loolu lépp ngir mën a dimbale population yi ñu am euh, yëg seen bopp ci centre bi ndax sëriñ bi bi mu koy bi mu koy ubbi ngir mu jëriñ centre bi la d'ailleurs sax am na ñi ngi santaale sëñ Moustapha Diatara ci liggéey bu am solo boobu mu ànd ko woon ak ñun ci daaray kaamil ba nga xamante ni centre bi xale yi nga xam ne formé woon na leen ak yenn ci formateur yi ànd ak université Bambey ñu numériser mbooleem li nga xam ne moom mooy kàggu yi fa nekkoon loolu tamit yooyu yëpp ay njëriñ la yoo xam te ni dañoo bëgg mu yaatu mën a jëriñ communauté bi waaye mën a jëriñ réew mi mën a jëriñ kenn ku ci ne waaye li nga xam ne moo ci am solo nag mooy centre bi ñun ñoo ko moom kenn ku ci ne dañoo bëggaat mu gën ko fonk comme li ñuy wax usager yi bu ñëwee nañ gën a fonk centre bi gën koo bàyyi xel ndax fi mu nekk nii suñ demee ba nga xamante ni ñi fi jot a nekk ah na day lim bi ñu soxla ndax ministre bi moom dàquñ wala ubbiwaat yeneen feneen ci ndimbalu sëriñ bi ndax moom pare na ngir accompagner population bi ci lépp loo xam ne xam-xam la boo xam ne ni ko sëriñ Tuubaa wax waxee xam-xam bu am njëriñ la te dagan kon loolu daal mooy li nga xam ne bëgg nañ ñëpp xam ne centre bi dafa nekk Guédé waaye ñëpp ko ñëpp ko bokk ndax mbirit faaw am fu mu féete te su nekkoon Dakar it faaw ñu dem fekk ko fa comme bu ñëwee ba fii tamit faaw ñu ñëpp ñu ñëw jël si ko kenn ko def fa nga dëkk it bu mu am barage ndax xam-xam moom yént bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne jar na dem sàkku ko ba Chine te fii yaakaar naa du Chine waaye dafa nekk fi nga xamante ne bi jege nañu lu mu sori sori war nañ mën a ñëw jëfandikoo ko donte da dëkk ba saam càlle tamit war nga centre bi sa centre te mën nga ko utiliser loolu daal mooy message bi nga xam ne doom nañ ko jàllale ngir bëgg parents yi tamit gën cee ñaax gone yi ba ci ñoom sax kenn ku ci ne mën na ñëw jëriñoo ko comme daal loolu mooy li nga xam ne ñu ngi koy lancer comme message ngir kenn ku ci ne jëfandik jëriñoo ci centre bi jërë ngeen jëf kon mu des nag ay loo xam ne du mën a ñàkk mooy sant ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak ñoom ginnaaw bi ñu santee sëriñ bi muy sëñ Bass Abdou Khadre ñi ngi sant tamit ministre de l'enseignement supérieur en particulier tamit di sant DAGE bi nga xam te moo ñuy accompagner ak suñu coordinateur muy Toumani Doumbia muy ku am euh, rigueur ku am jàmbaar koo xam ne ni sant bi aussi def ci góorgóorlu waaye aussi di sant suñu formateur ku mel ne monsieur Diatta Djili ak euh, ñoom El Hadj Cheikh ñoom ñëpp nga xam ne vraiment ci ñi nga xam ne ñi ngi jàpp ci formation yi nekk ay ñu jàmbaar ñu nangu ñu am pëseef di sant tamit usager yi parce que journée bi bu taxawee ñoom ñoom ñoom ñoo ko taxawal waaye aussi di tant tamit suñu partenaire Touba Vision muy koo xam ne tamit gis nañ ne wax dëgg fa yàllam euh, li ko ñor rek mooy développer ak vulgariser l'œuvre de Serigne Touba te l'œuvre de Serigne Touba boo ci génnee xam-xam la ca bëri ndax xam-xam ak yar ak diine moom moo ko taxoon a jub kon loolu nekk loo xam ne ñoom taxaw giñ ci taxaw ba tax na ñuy suñu partenaire yoo xam ne ñu ngi leen di sant bu baax ci njiital Serigne Khadim Seck di ñaan suñu borom yokk leen bañ am télévision yu mag a mag a mag ngir liggéey bi ñu mën koo ànd comme ñooñu daal mooy ñi nga xam ne ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.